ndaysaan ak moo te li règlement bi nangu ak li règlement bi bañ coup de sifflet moo leen boole coup de sifflet moo leen tàqale moo ja am na sengoor bu mu sànni ci digg bi am na sengoor bu mu sànni ci digganteem ak caat caat arrière na may na ko distance ndaysaan leetoo ndaysaan caat moo ja arbitre bi laaj na ay sixième Zizi nee na laaj na Modja nee na pare na laaj na caat arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 11 juillet 2021 il est 20 heures 28 minutes caat Boy Bambara ndaysaan ak Modja Yoff caat jiital tànk ndi joor Modja jiital tànk ndi joor ñoom ñaari xale yi ñu ngi noonu di lewaatoo ñu ngi fii ci arène nationale ki ñu fi woo di EPABC events muy presse ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu ndaysaan Caatu Boy Bambara ndaysaan ak Mod Dia ndaysaan ñu ngi noonu Caatu Boy Bambara ak Mod Dia Caatu Boy Bambara ak Mod Dia ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo ñu ngi xoolante ci bët ndaysaan Zes borom Brésil maa ngi koy nuyu ndaysaan di ko siyaar di ko bége ndaysaan garga bu gambi ndaysaan doomu nday France doomu nday Sa Thiès ak Balla Gaye maa ngi koy nuyu ndaysaan ñu ngi noonu maa ngi nuyu Fallou Diouf Espagne maa ngi koy bëggee di ko siyaar doomu nday Osod doomu nday Boy doomu nday Moussa maa leen di bëggee saan gaa yaa ngi noonu ndeysaan ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar dagg nañ lewaatoo bi caat dagg na ko moo jaa ngi taxaw di ko déglu ñu ngi demee latéral ñoom ñaari xale yi moo jaa caat booy bambara ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngay lewaatoo ndaysaan Thiatou Boy Bambara ak Modou Dia Thiatou Boy Bambara ak Modou Dia Thiatou Boy Bambara ak Modou Dia ndaysaan Thiatou Boy Bambara ak Modou Dia ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Modou Dia lu mu nar ndaysaan Modou Dia ak Thiat Modou Dia ak Thiat Boy Bambara Modou Dia ak Thiat Boy Bambara ndaysaan Modou Dia ak Thiat Boy Bambara ñoom ñaar am na ku bëgg a dem Modou Dia na Thiat delloo ko ko ndaysaan Modou Dia jokkaasaat na Thiat delloo ko ko wàcce nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf moo jël cokkaas aat na daa bëgg xeex bëre caat dekaas dóor na ko ndaysaan moo jël dóoraat na moo jël ni muy jëlee combat baax na moo jël cokkaas aat na moo jël cokkaas na caat daw na dóor mu daanu mbaa du am ndaysaan moo jël dóoraat na hee ñaari xale moo jël dóoraat na Modou Dia door déplacé Modou Lo Modou Dia ni muy baax na sànq der na ku croisé menton bu baax Thiatou Boy Bambara ñu xoolaat ñoom ñaar Modou Dia Thiat Modou Dia Thiat Thiat moo ne woon ginnaaw Modou Dia ngeen jàkkaar lool dagg na loo too bi seere bi Modou Dia na ci loxo bi naa da koo bëgg a dóor mu daanu loolu lay moom Mat Dia ndaysaan xeex nañ jàppante nañ caat jëli na ko Mat Dia bañ na Mat Dia bañ na ci suuf loxo bi sol na ko plaqué Mat Dia bañ na caat dañ koy forcer Mat Dia na dinañ xeex ñoom ñaar buñ tàqalikoo dina garaaw combat bi góob ma ne dina jeexee fii. ndax ku ci nekk peese na morom ci doole ndaysaan Mod Dia ak Caat Mod Dia jàpp nan ndaysaan da koo sol Mod Dia Caat Boy Bambara da koo na ko Mod Dia na ko daw na moom lu mu nar plaqué na ko mu bañ lu ma la waxoon na tanta nañ ci doole na tanta nañ ci doole combat bi du jeexee fii gëw ma ko su amee dina ma bett ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñoom ñaar ku ci nekk combat bi dafa am fu mu lu mu la jaral muy caat muy modja ñoom ñaar ku ci nekk combat bi am na lu mu la jaral boo gisee seen dugg si ci làmb ji tey nga xam ne ñoom ñaar combat bi am na tolluwaay ci ñoom ndeysaan ñu ngi noonu ba tey ndeysaan caat loxo ndijoor bi jàppul modja fi mu jàpp baaxul mais caatu ko ndengeñ actuellement caatu Boy Bambara Mod Dia caat Mod Dia lu mu nar Mod Dia li nga maye sori na li nga sori na Mod Dia li sori na Mod Dia li nga maye sori na caat jàpp na Mod Dia li nga maye sori na caxabal caat nga maye sori na caat dina ko war ndomba caat dañ koy bëgg a bët da koy daan daan na ko caatu Boy Bambara daan na Mod caatu booy bambara daan na Modja caatu booy bambara daan na Modja caatu booy bambara daan na Modja jël bu amul benn werante foofu ma jéggi xool caat kàggu taxawal foofu kàggu taxawal foofu kàggu taxawal foofu foofu rek jume ma ma daw ci caat xool caat daan na Modja Thiat nga wax Thiat Thiat loo wax. Thiat ñëwal ci li nga bëree ñëwal ci li si bëri bi. waxal ma jógee si sant sama ñaari waajur. dëgg la di sant sama waa dëkk waa Dionewar. di sant waa Ndour. di ñëw si naan ñu ziaraan ñu. doo kontaan ci anoo daay màkk. en deux seo yàlla. Thiam Thiam. en deux seo yàlla. xoolal mel na ma. xoolal saa mais ñun ñoo doon dañu gisee gàllankoor.